la la ilaha la la la ilaha la la fa la ilaha la la la ilaha ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha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 فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله sëriñ Cheikh Ngunda nee na mi ngi lay nee na mi ngi eh? waaw waaw nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare bu baax dafa ne nag dafa dikkoon ci liggéey bi nga xam ne muy ndigal li nga xam ne ndigal lii ngay taxaw fii mu ne muy ndigalu tabaski yi yi nga xam ne danga koy waaj di ko yóbbul sa sëriñ ba moo du Mountakha eh, nee na taxawaay boo yitte jooju moo ko yëkkati nee na nag eh, andi na fi juróom-ñaar fukki xar ak ñett juróom-ñaar fukki xar waaw ak ñett waaw waaw daa wax ni xeeb na ko sax ah, loolu day faal kawe na lool waaw waaye daal xam naa li si des Serigne Moustapha <laughs> moo koy jottali waaye daf maa xoon ni naa wax loolu sëriñ bi waaw ne ne ne mi ngi yeesal nag ak pas-pasam ak jaayanteem ak ak ak yaakaaram mu jëm si yow yàgg naa di di serel doom aadama yi ngir nu am ci taw sa digg ak mom lan moko waral ak taxaway bi mu am fi yow lan moko waral lamu ci djublu nak yalla xamnako ko Cheikh Rafal xamnako na ko Gunda xamnako ko Serigne Modou Fall Mbend xamnako na ko dafa bëgg nun talibi nu barkelu ci lolu ndax nu am ci taw muy and bo xamni ne ko leerale loolu ku amuk dig da nga du amuk jaxlé ci ab taxawaayam ci sa wet ci nii nga xam ne noonu la taxawe sa wet muy waxtu wu ne mu ngi teew fii ndigal loo am mu ànd kook yow ba nga am sa ndam guddi ak bëccëg am xelam ak dooleem ak jëfam léppam mu jox la ko ba desulul dara loola nag moom lii da see topp si rek ndax dañ see toll muy liggéeyub tabaski yi mu daal di ñëw nag andi nag aw sasam da wax ne xeeb na ko lool te loola ñun leer nañu xam naa ne yéene naa def lépp lépp lépp ndax ab xolam bii li si biir boo ko seetee li si nekk ëpp na loola waaye nag jëf ji moom tuutut faal rëy na lool juróom-ñaar fukki xar ak ñett moom la andi jébbal ko sëriñam yow mi sëriñam di xaritam di magam di léppam mu doy loola si lépp ànd ak njabootam gii nag nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi di ko taxawu xam naa li si dolli ko mooy Serigne Baye Moustapha sekk mii am na kàddu yu mu si war a yëkkati nu jox ko mu yëkkati ko waaye loolu rek la ma waxoon naa ko seere Fall xalifa généralu Baye Fall yal na yàgg te ànd ku wér akuk tal akuk man ci barke Cheikh Modou Fall Mbenda ci barke maam si Ibrahima Fall Babul Mouridina sëriñ bi de sëñ Cheikh Ngounda moom. ab liggéeyam ci yow ñëpp la war a liggéeyal waaye moom nag su doon gàncax mu ni dug njëmbat daa too mu sax ndax wajuru mu baax wa maam su Fall sa wajuru baax wa la ko maam si Ibrahima Fall jébbalan mu ànd ak moom di ko liggéeyal ba ba mu demee ba ba nopp koo gis dana duutuma tàllal kenn ay loxo ndax man man Seera Fall saa baay moom ma tànnal ëpp sëriñ kon buñ demee ba nga xamante ni naka jee kenn yow a Cheikh Ibra Fall ndax mosu fee jóg ndax sëñ Moussa Ka dañuy sëñ daam yëgal ni jaan dangar jële yi judduwaale ñàngoor ngooloo lu ci luggul jaale ba nga doon ak Cheikh Ibra nag ci jitaay bii mu ànd ceeg yow te naka jëkki daa ànd nag yow mu fiddili ay pos-posam moom gi mu àndal nee na bu la joxee benn yéene na junni da koo mënut waaye wóor na ko ni soo ko ñaanalee junni ba mu yéene dana ko man te su ko mënee dina ko def nee nañ ko ñaanal ba kattanam gën a yokk saa yiran wa baatinan ne lépp loo xamante ni yëg na ko muy sa yitte am na lu sama wëjjur waxan sëriñ Abdul Ahad Mbàkke sëñ Cheikh Fall Ngundam mi ngi la koy wax nena dafa am lu muy wujjeel ci sa xol bii li sëñ Cheikh Fall Ngundam wujjeel ci sa xol bii nag mooy sa yitte ndax yitte dafa dafa dafa sori ci xolub boroom ba nga xamante ni ku bëgg fu yitte ja tëddal mu tëdd fa loo yitte woo da koy faj su ko fajee nag fu yitte ja tëddal mu tëdd fa sëñ Cheikh Fall Ngoune nee na na nga ko ñaanal te dimbali ko ba loo yitte wooti ma faj ko ba yitte ja fu mu tëddan ci sa ci sa xol bi mu tëdd fa nee mi ngi ñaan loolu nga ñaanal ko di ko yelwaan bu baax a baax ah nee nee mi ngi mi ngi dongo bi yi mu àndal nag ah mi mi ngi lay seereel ah, seenu cant ci yow ndax nangu nañu ànd ak moom liggéey sëriñ bi nee mu ngi leen soññ saa su ne xam ne ku si benn jéego sikki téeméeri jéego waral na la la sëñ fallu seen wajur waa waxan rek ne mi ngi ko soññ di ko soññ mu àndal ne fabawaat rek sëñ sëñ ngon da neen fabawaat sëñ daam nee nañ fabawaat mënatu see wax lu sori de nee na daal moom mi ngi nii rek waaw wax na ko keroog sa sarax sa sa njaareem sa sama kanam man mii waaw waaw nee na ku dul yow. day maslaa rek amul amul si soxla. yow yaay yaakaaram yaay léppam. nee na njaboot gii mu àndal di la liggéeyal. ñi ñëw ak ñi ñëwut. nee na dafa bëgg nga baddil leen. ñu mën a àndak moom ci liggéey bi. ba ñom ñepp ñu laq sa ngeerum ndax mom neena dafa nakare andal neena na na kéro Omar dumbu ya diko wax nan Serigne Cheikh Ngunda da xam liko mamam defal ba tax na ku muy ku ne lam bëgg and ak yow bo sa jaarut danaan la talal say loxo ñaanal la nga dem ma dem nag. loolee nag. xam nee na xam li ngeen ko defal moo tax. ñoom na ñoom ñii nag ànd nañ ci ak moom. ak ña ñëwut it waaw ñépp rek. kon ñu ngi nii rek. kon ñu waaw jërëjëf Fall <laughs> waaw <laughs> jërëjëf Fall. mi ngi lay sant bu baax a baax. nee na mi ngi lay ñaanal. nee na sama borom may la ak wér. ak fan wu gudd. ak fan wu gudd. nee lépp lu la nar a dogale. yàlla na ko fi sama borom jëlee ba faw waaw. nee na yow itam. maa ngi gërëm na la bu baax mi ngi lay gërëm bu baax. ndaxte topp topp Serigne nee na topp gi nga topp Serigne Modou Fall Mbenda. te te faale woo lenn. lu ma topp sëriñ bi dul topp sëriñ bi rek. li nga nee na ni ko toppee. naa ko yàlla nee na loolu yàlla dina la ko fay. nee na sant na la bu baax Fall. waaw waaw <laughs> jërëjëf Fall jërëjëf cantuk sëriñ bi da xam ne ndax xam naa nun taalibe yi ñooy lot ndax sëriñ moom du lot. waaye waaye waaye taalibe yi moom moom moom danañ lot si cant ndax képp koo xam ne xam nga diggante ah sëriñ sëriñ Amdi Fall ak sëriñ Cheikh Fall mii. Eh, wax doo si amuk jaaxle ah, ndax Serigne Cheikh day fii mu àgg nii eh, kenn mënu ko weesu joxe sa lépp xam naa la sëñ Touba waxoon yonent bi ne ko jox naa la lépp Cheikh Rafal wax ko sëñ Touba jox naa la lépp ba desalu ma dara moom mii de loolu la def ak sëriñam bii te lool tali bi ñëpp mat nañ ci seere waaw lii muy lii nga xam du mënu ko sax a ci aw lammiñam ndax ndax ndax ndax sori gu mu sori si mom nun ñëpp nu xam li lay dëgg si mom te sori si mom loli tawfiix la ci nun murid yep nun talib yep tawfiix la ci nun motax li mu séré ni murid yi and ak mom mu séré ni ku nakare andal la ndax fi mu tek tankam bëgg dem képp ko xamni ki dëggaloo si la nga ne du ngeen mëna and du ngeen mëna and ndax mom daa jox bopam da jox leppam sëriñ bi da sëriñ bi daal sëriñ Cheikh mi mom loolu rek la seere si sa jëmm ji nee daal nee na daal soxlawut dara bëggut dara wutut dara dencut dara nee lépp jox na la ko la sëñ Tuubaa waxoon yonent bi la woo dëxëra niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruux wa jusmaani wa kulli bi laa sukkali ba ba sëñ Tuubaa di lim li mu jox rasulullaahi daa dem ba sa mujj ga mu ne ko jox naa la lépp sax amul moom jaratul lim jox naa la lépp te desalu ma dara moom moom nag noonu nii la ko defee sa digg ak moom. pas-pas bi mu am sa digg ak moom. àgg na si mënu koo génn si aw làmmiñam wax ko. cofeel gi mënu koo génn si aw làmmiñam wax ko li mu ko mën a feeñale ah mooy nii nii mu def rek kon nag Fall nga ñaanal ko moom njaboot gii mu àndal. ah Baye Moussa njaboot gii nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi te muy seere si ñoom seen pas-pas ndax waxtu geesoo gis leen nga ñaanal leen dëbb leen kattan ni mu ko bëggee. ba li mu bëgg moom liggéeyal la ko ñoom nu mën koo ànd ak moom ba mu amee ko num ko bëggee waaw jërëjëf Fall. Fall Ngoulo ca kër bii xam naa daru ump ko waaye mu dégg ko bu baax a baax jamono ba njaboot ga dajee muy ki muy koor muy addiya day dajale ñépp ni leen sama kilifa dama koy joxe addiya te lu sell laa ko bëgg a jox yéen ñii di liggéey yi ma di leen ko laaj kenn ku ne la ngay liggéey na ko na ko def muy liggéey bu sell daa mu wax ni man man man Cheikh Ngounda Fall ku ma joxul nag lu sellul mën naa koo bañ a xam nee ñu Cheikh Faal daana ko xam de mën naa ko bañ a xam nag waaye ku ma jox dërëm bu sellul wala dara lu sellul ba ma boole ko ci addiyam jox sama sang bii gàcc naa la ko ba ca kanam maam si Ibrahima Fall mi ngi boole yow man xiyaamati kon nag loo waaye déglu sell kon Fall loolu rek laa bëgg mu moom lu mu fi indi rek lu sell te te ñii moom dégg nañu ne. li mu la na si addiyee. ñëwee njaareem waxon na sa addiyee ya, talib yëpp diko ko dégg mu ne am na ñoo xam ne di ñëw naan sëñ bi ma avance la ci sama addiya mu ne bu ma benn taalibati avancé te sëriñ bi waaw kenn ku bëgg avance nang ko denc bu mu mat nga indi jox mako mayit ko sama sëriñ <laughs> lool nak ku dëggu dong ko man faal waaw waaw dik ko jey momi mi sëñ Thiam te booba nekku na fi yag lool yag fi and ak sëriñam bi murid yëpp nan ko ñaan sëriñ Cheikh Ngounda Fall ni mu taxawoo sëriñ di ni mu jàppe sëriñ Amdi ni mu ko liggéeyale dafa mel ne sunu borom da koo waajaloon ngir mu ànd ak sëriñ bi liggéey bii te loolu murid yëpp mat nañ ci seere féete na ko foo xamante fii fu mat sëkk la te bokkam yëpp nangul nañ ko ko yàlla suñu borom dëgëral ko sama borom kattanal ko sama borom wéral ko boole kook sëriñam bi ñu ànd liggéey lu yàgg yàgg yàgg ndam li daal yàlla nay tegaloo rek barkeb Cheikh Ibrahima Fall barke sëñ Modou Mbend ak maam Saliou Fall waaw mën nañ ko nanu ko def rek ñoom ñu sàkk fee toog sàkku fee yàgg sàkku sàkku jiite mbooloo mi rek bu nu ko sàkkoo rek am ko waaw bu nu ko sàkkoo rek nun nu am ko muy sunu taw tawféex nun ñëpp faal waaw jërëjëf Fall jërëjëf xolu murit yëpp seet nañ Baye Cheikh waaw nee na bànqaas bu si soqi ko ca garab ga la kon mom dafa yakar ni. mam Cheikh di jebal sa mbay ba mam Cheikh Ibrahima Fall di jebal wajurum ba mam saliw Serigne Modou Fall Mbenda. nee na su demee ba melni nga nek fi di Serigne bi. nee lola rek ma waral li nee sa alal la dem tay soko ñew waaw nañ. waaw na ñepp talal Serigne bangi ñaan kenn ku ne na ñaan ñu yag fi te wér. amin Fall amin Fall amin Fall amin amin amin amin sëñ bi sant na la lool waaw du def dara te newut ana sëñ Cheikh Ngounda la kilifa yi teew bokki taalibe yi bokki jullit yi xarit yi ak soppe yi ak wóllëre yi sëriñ Cheikh Ngonda Fall mum maam Saliou Fall mum maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina mooy dellu di nu nuyu ndax nuyoo woon nañu sànq ni nu nuyoo waat béet nag nee na ak cant la ëmb ak ngërëm ak ñaan te dina dollee séeréel ab xolam bu sedd ci nun ak xelam mu dal ci nun nee na looloo tam li ko gën a waral mooy dañu fee bàyyi ko léegi dem ci kilifaam di ab sëriñam mu si am di faal mu sëñ Moodu benn faal xalifa général Baay Faal yóbbu fa jëfam ba mu fa yóbboo jëfam nag la waajuram bu baax wa daan wax yàlla dogal mu dal ko ca moom mii sërif Assane Fall sa waajur bu baax wa daan wax ni fu ñëpp di daje di fa sutti seen jëf soo fa sottee sa jëf ñaar doo ngay mën a am ñu naw la wala ñu xeeb la te ñu xeeb la dara jëru ko kon nag moom li mu nu gën a gërëme am xelam gën ko dal ci nun mooy ba ngeen dajalee siin addiya teg ko ci loxoom mu boole koog li mu amal boppam ko ab sëriñam nun ñëpp noo teewandoo laata sëñ am lim sëñ Moodu Mbenda daa wax kenn moo waxal boppam naw ko lool kon fa ñëpp di daje dafa sutti seen jëf ba mu fa suttee jëfam ka nga xamante ne boo ko nawee mu naw mu si am dim sëñ moo di benn xalifa général Baye Fall naw na ko kon nag ab sëriñ bu àndi ki taalibeem jot baatum digal taalibe góor góorlu ca ba mu boole lu mu am ak lu mu amul lépp ndax lu mu am ak lu mu amul la bu nu jàpp ni sëñ bi lu mu joxe da ko am ñoom ñii de dee liggéey di joxe seen taal bi di neen jox ñu joxe dee ñu leb di joxe ndax dañu am lu ñu ëmb ci pos pos loo xamante ni saa bu jotee bu ko kenn indil woon daraat bu amee ku ko ku ko yen lu mu lu ma mën a jox sëriñam te ba noppi yéwénal loole dee ko def kon dañuy def lu ñu mën di def lu ñu mënul kon nag alal daa war nuru boroom sëñ bi nag nee na loolu la ñu sante ba nu demee noo ko gisandoo noo ko déggandoo sëriñ am di faal mu Cheikh Modou Mbend Fall xalifa généralu Baye Fall yenn fi yàgg te wér moo ne sant naa ko daal lii kat li nga indi bari na daal di ko yiim ñaanal ko nag ni ne ko yal fi yàgg te yal na ànd ko wér mu ne ko lu la nar dog yal yàlla dog loolee kon loola bu nu àndee moom ci liggéey bi ba mu dégg baati ngërëm yooyu yii moom itam bu ñëwee ba ci këram dina dina ni am xelam dal na ci nun ab xolom seet na ci nun waaye nag nanu fabuwaat nanu fabuwaat ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la te kii kenn waru ko raw diitu ko rawit nag kon nag nun ñi nga xamante ni moo diisu ko raw waaye bu nu daagoo mu raw nu ñu raw nu de kon nan bañ bu nu kenn raw koo mënta dem ba ko soo jógee danga ko naa ay ci dem moo tax nag mu ni ay ci li dem te fu mu jëm nun dina fa yegg nun mooy ci yàlla rek ndax moom ay pos posam jëm ca yàlla rek ak bëggam jëm ci yàlla rek ay yitteem jëm ca yàlla rek yàlla mi mun a jëmee nag te dina ko xamal saa su ne ca la maamam Sëriñ woote ca la maamam Cheikh woote bu nu bëgg lu dul yàlla àjjana sax bu nu ko bëgg ni ngi diggu lii may bëgg a wax bu baax bu nu bëgg àjjana bu nu ragal soo war a nañ bëgg yàlla ndax lu nu ci bëgg loola dina nu sonal dina nu gàllankoor ndax ki ne woo wuunu àjjana sëñ Tuba wuunu àjjana néewul minal jannati ilal jannati sëñ Tuba dañuy minal laahi ilal laahi ni ay na murid laahi noonu ko noo ngi saanam si la fànn ko maa ngi noonu ko noo ngi dañuy ci yàlla laa jóge ci yàlla laa jëm ana ñun ma jëm ci yàlla. maam Cheikh Fall maamam ni ko maa ngi nun ñëpp nu ko noonu kon nun ki nu woo ci yàlla la nu woo. maam si Ibrahima Fall ba ko fekkee mbag Kajoor ko baax da ko ne ca yàlla mu ne ko ana foo jëm sant soo fànni ko ca yàlla ku baax ne ko ana looy mu ne ko yàlla mu mii ñaari maamam yooyee fa ñu jóge woon dafa delluwaat tey wut loola moom yi fa la jëm bëgg ci ànd noonu bëgg nu yóbbu ci yàlla bu nu bëgg dul yàlla na ànd mu bëggale ko yàlla ku bëgg yàlla nag yàlla rek ngay bëgg sëñ Saaliw nag noonu na la taw ko waxan ni yàlla yomb naa am ndax moom soo soo soo waaxu wuti ko day waaxu di daje waaye booy geesu muy dëpp nan lank bu nu geesu bu nu gis lu yàlla sëñ si ngun na faal jël na nga fi yàgg te ànd ku wér kon nan fa bawaat li ci des nag yitte ji yegg na am na yitte yu nekk ci suñu kanam ñaar yitte ci gën a jege mooy liggéey bii ci Mbàkke di kër Sëñ Tuubaa gii sëñ am di mu sëñ Moodu Mbend Fall di liggéey ci diggante Mbàkke ak Njaaréem mu am ci buntu Mbàkke nee na kon nag nu fabawaat liggéey boobee liggéey boobee gis ngeen taxawaay yam ca taxaw booba ba léegi ak cant yañ ko ci sant ak ngërëm ya waaye nee na nag la la baayam ju baax ba waxan nee na moom fële bëgg a teg ab tànkam moom suñ seex faal ngunda suñ fallu danoon doy doy yàlla daa indi tur wi jamono ti indiwul jëmm ji daane ndax mos ngeen a gis ku amul dërëm ba ne doy na ñu ne ko déedéet mbàkke mooy ndax mos ngeen a gis ko am ngërëmul yàlla ba ne doy na ñu ni ko déedéet mbàkke mu ngi dërëm du doy àdduna ngërëm du doy àlaaxira bi nu tàmbalee ànd ak moom ba léegi nag ca suñ seex jëmb ak lu ko jiitu ak ña ko yaran ndax ndax ndax doomi seen tubaa jëñ ko jëkk a jox mu si Abdoulaye Mbàkke moo ko jëkk gërëm boole ko firnde delloo ko wujur ko joxoon si Abdou Sakor Fall sëñ ko fa ba waatal dox ba leen jéego teg ko ci loxo Seex Mamadu Murtadaa mu borom Tuubaa Xaadimu Rasuul mu gërëm ko boole ko firnde am ñaari ngërëmi doomi Sëñ Tuubaa sëñ Abdou Sakor gërëm ko bàyyi ko fi wuy juróom maam Saliou Fall gërëm ko ba mu ko wanee ginnaaw ak léegi nag ku mu àndal di liggéeyal yoon wi gërëm nga ko waaye nag nee mu ngi bàyyi xel ca la sëñ lu wuy juróom waa waxan dërëm du doy adduna ngërëm du doy àllaaxira kon doy loo wul ngërëm yooyee dina ko sant yàlla na waaye mi ngi sàkku yeneen nii daa bëgg nag nu fabawaat te ànd ak moom sàkku yéen ngërëm ci kanam kon nag liggéey baa ngi fi muy liggéey bi ci mbàkke nan ci nan fabawaat te taxaw ci màggal gétt mi ngi ñëw nan ko fabul ndax bisu borom Tuubaa la boo xam te ne am bis boobu moo nu ko may ginnaaw tabaski jàll na loolu daal na ci ay kàddoom sant di nu danu ñaanal fan yu gudd yu ànd ak ak ak fekkeek tal gi sangam bi ñaanal ne yal na jaar ci mu ëgsi ci nun te yal na ko yàlla dogal te mucc musul noog njaboot gi te nu sax nag ci liggéey sëriñ bi rek bu nu geesul dara nee na àdduna rëm na waaye rëbuk àdduna bu ci suñu yoon nekk nan doon benn bët di xool yàlla rek mi ñu nu jëme nan ko ca teg suñu bët bu nu dara jaxase ndax adduna kat alquran dafa wax ni wa ab taqi fi ma atteeka laahu daara laaxirat te mooy ci lii nu nekk nii ba fi mu nii lu ngeen am ni ngeen ko jënd seen kërug àllaaxira moo tax lu ma am joxe na ko yéen lu ngeen am jox ngeen koo di la ca la ca des nag mu nekk ci sunu kanam ak ci sunu kanamaat ne ba ci sunu yoon ne loola loola doonul lu ñuy lu ñuy lu ñuy bàyyi waaye du doon lu ñuy fàggu adduna su ko fàggu mooy wala tan sa nasiibaka mina dunyaa lu ñuy fàttaliku rek la lu ñuy fàttaliku di nga wut mbubb sol ko. di nga wut loo lekk lekk ko di nga wut foo tëdd tëdd fa loo xamante ni da lay mën a gunge ci liggéey bi nga bëgg a liggéeyal borom Touba ak maam si Ibrahima Fall dañ ko fàttaliku adduna waaye adduna kenn du ko fàggo nan bàyyi nan fàggu yàlla mi mi nga xamante ni ci ci ci. moom la ànd nun jëm ca maama yu baax yi jëman ca suñu pàgguteef bépp bépp na doon yàlla loolu daal mu ngi nu koy dénk ci sunu kanam ak fu nu mën a nekk ak lu nu mën a yëngu ridan war xamata mi ne laay ba di xëyri mi ne duniya uma fiya jami di ñaan fan yéeg wér gi sutura si nag mat te nuy soññ njaboot gi te yar njaboot gi nañ leen di yar nañ leen di jàngal leen di yar nañ leen di jàngal am na it baat yóbbu loo xam te ne moom suñ seeg faal ngu ne mii moom wax lu ma ko man mu taa sekk maa koy wax ndax maa ko maa ko ko nemmiku maa ko nemmiku de muy ak tërbiya maam ci Ibrahima Fall moo ko fi samp te ak tërbiya tërbiya mooy yoonu murit li ci des yëpp gaañu baax ñi jaarat nañu fa waaye samp daari tërbiya ama de sësin la ko maamam jëkk samp ci leeru salaam jëkk doon muritub tërbiya bi jëkk liggéeyal borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ña ci ànd moom ànd ci moom ba nëgë ni maam Cerno Sàll maam ci Ibrahima Fall moo ma wax ni ma moo ma ni Mustafa man ko faal mun ma samam Cheikh faal nena na nit ki bu juddo magat, ndeyam ak bayam magat ba noppi silmaxa donte ko nit guddi la warno ko fanan ci dari tërbiya doga dem yore ndeyam ak bayam ne Cheikh Fall ko wax ci dari dari bakhdas na may ja maam Cerno mooma may ni mam ci ibrahim Fall nena Nilen adom ñetti garaat mo pu doole ci l'islam garaat bu ci jëkk moy sahaba ya andal ak muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam di xeexal l'islam garaat ba ca top moy garatu terbiya kon amna solo garaat ba ca topat moy garatu gaday moy nit nit mbooloo mi gàddaay sin dëkk soufi mam ya ñew Tuubaa waye ne li tax garatu terbiya jitu garatu gaday nak bala nga terbiya da ngay gaday ba terbiya tek ca léegi nag kon garaat boobu mooy ba ca jiitu topp ci garaatu saaba yi man nemmi ko nag man ni baay baay faal doomi baay faal yaa ngi gën a bari daari tërbi yi yaa ngi gën a wéet nañ ko bàyyi xel de mat naa def taxaw seetlu doomi baay faal yaa ngi gën a bari daari tërbi yi ñu ngi gën a wéet nañ ko bàyyi xel te mooy sunu alal mooy sunu formation professionnelle bu murit mooy daari tërbiya te garaat bi gënam a mag ca lañu na ko defal nan ko bàyyi xel maam si Ibrahima Fall nag am na ko ma ba léegi loolay am de am na koo xamante ni dafa dafa juran doomam jox ko ko xam na turam xam fa mu dëkk xam na mu sant xam ak njabootam waaye al adabu afdalu min kulli shay'in ba mu ko joxee mu ne ko diw mu ne ko faal mu ne ko mbaa taaw bi nga ma jox mu ne ko déedéet faal mu ko def nga ay saa am si la faal ne ko def nga ay mbaa jàppoo ni dinga nga di yar ma yar li nga yar gën li ma gaa ñaa ngi soo leen joxee ki nga leen jox ñu ñu yar ko yow nga kof kofe ca ka yàlla ko sa bopp mënoo fexe ba mu gën ko mun te am nii docteur yi tere ko wopp sa bopp garab faj sa bopp te di mu hôpital noonu la la yoonu lislaam mel cheikhul murabbi yi nañ leen jox suñu njaboot gii ñu tàggatu nu leen yaral nu leen xamal leen jox leen ab cër ci lislaam kon na nan bàyyi xel loolu moom daal li gën a gàtt doomi bàyyi faal yaa ngi gën a bari daari tur bi yaa ngi gën a wéet fii ne maa ngi gis sëriñu Baay Faal si am ñoo xam ne dañuy jàpp ay surga loolu nag du seen kersa sunu kersa la nun nun nun nun muriti Baay Faal yi nanu fexe ba sunu sëriñu Baay Faal si di Seexul Murabbi te ñoom ñii kat fa seen maam tegan yoon wa ñu fa ndax dañu ko yokk koy noyit nañ jéem a yokk waaye nag jur jox bi mu jàngal la am jox bi mu dencal la am kii jox tubaab bi mu yaral la te nga sëriñ bi la wóoru kuulu tiif ga boo ko wax ci awlam yi du neex a gëm nañ jël sunu doom yii jox jox seexu murabbi yii nee la keroog ah, li li li li li xam nga sëñ moo taalaa ko moom ko doon wax léegi bërki dem bi waa gi sëñ Cheikh Fall Khadiga ñëwee 1975 ma ànd ak sëñ Assane Fall daabaay mu sëñ Modou Moustapha Fall ñu jógee Dakar keroog la ñuy saraxal mut sàmb ba ñuy tolloo xombal une heure du jot na mu ne Moustapha ma ne ko Faal si Assane Faal daabaay nu nekk ci oto bi. muni ma ñetti mbir la ñuy natt ab taalibe ma ne ko ah mu ne ma buñ la laajee ñaq nga joxe ko. nu laaj la sa alal nga joxe ko nu laaj la sa doom nga joxe ko nu xamee li nga wax dëgg ci yow kon nag bu nu bëggee ñi xamee li nga wax dëgg ci noonu sunu ñett yooyu buñ leen ko téye na leen ko jox ridan wa rahmatan minallahi badi xayri min dunya ma fi jami wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu yàlla itam yàlla itam soo ko dee liggéeyal boo ko dee liggéeyal danga am aw sas. doo bëgg leen. doo bëgg leen. loolu am yàlla rek. ka nga àndal itam. ka nga àndal itam. di wut yàlla. am na aw am na aw sas. li aw sas ca moom mu jóge fa yow nga jóge fa mel na neen noo wër ta mel kooko gàcceema moom it kon nan góorgóorlu bu baax jërë ngeen jëf nag jërë ngeen ji bu ko yàlla dogalee nag ku bëgg a yiwi ko it nañoo toog ba xiiwlu su ko defee ñu mën a yiwi ne ñi bëgg a fanaan it mën nañu fanaan bu suba jërë ngeen jëf di sant sëñ Aliou Thioune mi ak kilifa yaa nga xamante ni ñoom ngeen nekk ci télévision Lamp Fall ndax lii kat firndeel firndeel na ni tur wi sëñ Aliou Thioune tuddee télévision bi maam Cheikh Ibrahima Fall maamam loolu lu la ci moom waxee na ko jëfee na ko ba ñëpp seere na ko kon sëñ Cheikh Ngounda Fall ne mi ngi ñaan mu jëm ca kanam am tànk kanam yi yoon wi am te bañ am tànk ginnaaw barke suñ maam Cheikh Cheikh Fall barke maam Cheikh Ali Fall yal na ko saa borom boole jërëjëf ndiim nuyu suñ nuyu ko sëñ Ali euh, sëñ sëñ sëñ Muudu Mamoun te nuyu ko sëriñ Ali Cuun Ngal doole te di ko ñaan di ñaanal mboolem personnel rajo télévision Lamp Fall jërëjëf. bismillah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 Darou Bayrefal TV, la première scène qui valorise la vie et l'œuvre de Mam Cheikh Ibrahim Fall.